billaahi nit fekk yorul pouvoir ak doole pouvoir xamul boppam xam nga toog nekk si biti rek yoroo dara naan diw nii la mel ak diw naa la mel ak diw nii la mel fekk yoroo yow si sa bopp xamoo sa bopp dama leen wax dama ko xam dama ko dund dama ko dund da ngay yore da yore cër jël nit fal ko yow yaa signé décret bi ko fal wala boog yaa ko signé lu nga defeek moom juróom benn weer mu soppeeku moom ba jaaxal la yow bi ko fal oui alors loolu moo tax li may insister nii naan leen ñii <laughs> bëgg naa ngi ngeen jàpp dama dama xam cër yu ñu yore ku mel ni bun nekk ministre premier ministre pendant pendant cinq ans te nag yàlla may ko aussi mu mu jik réew mi def bilan bu kenn mënul werante yàlla def mu am chance su président jox ko mu diriger liste législative ba daal di def campagne bu rafet bu yiw bu civilisé bu réglé bu tegu ci yoon bu nite yàlla may ñu ndam lu rafet a rafet a rafet mu am majorité bu kenn bërantewul alors kon gis nga kooku walla su kooku su gé duggee génn doo gis benn soppeeku si ki nekkoon si biir ak ku nekkoon si biti kooku man mën naa ko ñemee mën na daal sama xel mën naa ko ñemee mën na dal sama xel <laughs> ndax dafa def ma gis dafa def ma gis alors ñoom ñii Augustin nii maak moom a yem ñun ay taalibe lañu dund taalibe la ñuy Augustin li tax Thiès amu fi benn problème wala ku am problème ak moom yow yaa am problème moom amul problème <laughs> mooy ooy fop mooy ooy fop man gis nga soo doon yéeg juróom ñaari asamaan di wàcc te nitewoo safooma ñoom ñii dama lay xool rek soo tëbee tëb ba tey li sëñ Cheikh Tidiane naan kuy fëgg dënnam naan dama lay sama buur bàyyi ko ba mu giif dama lay sama maam mu ne bàyyi ko ba mu giif nga ne ko yàllaay sama buur tontu laa ko <laughs> voilà alors lii laa bëggoon ubbee pour dire vraiment man sunu sunu sunu jotaay bi dama si am yaakaar lool Ibrahima Makodou vraiment ñu lay gërëm di la sant Ibrahima yow il faut que aussi ñu bàyyi la xel ndaxte li may wax si kanamu premier ministre laay wax parce que moom premier ministre avant mu nekk premier premier ministre industrie mooy secteur boo xam ni daf si liggéey àddinaan yépp ba ba ñu jël ko mu nekk Vienne ONUDI di fa liggéey nu ñuy gungee réew yi ba seen politique industrielle tegu si yoon donc nitu industrie la premier ministre waaw man euh, ministre nee na ni ay tooyam témoin la mais Ibrahima Makodou particularité am mooy dafa ñeme industrie te mu metti lool la industrie képp ku ko song ba pare taxaw mu dem xamal ni jàmbaar la e, industrie société créer usine di xeex marché te yaa ngi xëccoog marché ñi nga xam ni leen si réew yu am doole lañu ay réew yoo xam ne dañ leen di defal ay subvention produit américain produit chinois ngay ñafe di fa buuxante ba def fa dara indi valeur boo xam ni dana mën a jàll en place ci marché international teg réew bu la mën na développer te industrie amul waxu la dëgg de vie sans un minimum énergétique ak industriel énergie ak industrie ñooy développer réew mooy base bi ak ressources humaines de qualité loolu moo tax plan Sénégal émergent li si jiitu mooy transformation structurelle de l'économie maanaam industrialiser le pays moo jiitu ci plan émergent deuxième bi di ressource humaine waaw troisième bi di gouvernance bu tegu ci yoon moom du ma ngeen foofu dara ndax moom loolu programme am la PSE suñu ko togg moom la njëkk a nekk ministre moom premier ministre laata mu doon premier ministre alors donc loolu aussi dama bëgg waa Thiès yi ak cadre yi fi nekk ñu xam ni réew su amee ci ay doomam ñoo xam ni dafa am secteur bu metti ñu nekk fa di fa xuus war a ñu leen seetaan dañ leen war a gunge dañ leen war a jàppale def leen suñuy champion pour que ñu dem yóbbaale nit ñi loolu moo tax Ibrahima indépendamment taxawaayam en tant que société civile taxawaayam en tant qu'intellectuel taxawaayam pour que jàmm di am si réew mi parce que moom dafa comprendre enjeu wu jàmm parce que jàmm fu mu amul leneen du fa ne jàmm moom su amul dafa am ñett yoo xam ne bala ngaa xam seen valeur nga commencé ko ñàkk mooy santé santé wala fi dañuy wax ni soo am soxla su dee ñaar feebar da see bokkul soo amee ñaari soxla rek dafa fekk feebar ndax ku feebar benn soxla doomu lay wér santé bala ngaa xam valeur am nga commencé ko ñàkk liberté am sañ-sañu dem di dikk bala ngaa xam valeur nga fooyee ko ba ñu teg la benn bërëb nga xam ni bala ngaa jël potu ndox sax da ngay tàggu du lu ñuy fooye santé duñ ko fooye liberté duñ ko fooye jàmm duñ ko fooye ndax jàmm jàmm si la lépp lépp lépp xaj bala nga xam ba nag ngay bakkantoog di cappi cappeek ba mu ba mu dem da xam ba lëndëm loolu moo tax suñu kuréel gi li ko yëkkati mooy nu ñuy fexee ba dellu si waat si principe yi nga xam ni ñooy saxal jàmm ci du ma dellu si si si analyse yi fi ñuy ñëpp def principe yi ñu war a dellu si nu ñuy dell parce que jàmm li koy indi mooy république ak démocratie moo koy saxal loo tax ñu tuddee ko au nom de la république et de la démocratie t-shirt yi fi xale yi sol yépp soo ko xoolee ñu ngi bind si ginnaaw défendre la république la démocratie pour la paix la stabilité et le développement mënoo am jàmm mënoo développer réew su jàmm amul mooy base bi stabilité sécurité la sécurité précède le développement donc loolu yëpp nag si jàmm nga ko mën a amee ak booloo loolu moo tax sunu kuréel gi bañ ko yëkkatee ñeenti ponk moo doon charte moo ñoo ñooy ñooy tànk yi yu mu samp fondation yi ñeenti pucc yu mu samp yi benn bi ci jiitu mooy république ak institution yi bu ñu leen fooy nañ leen aar ñooy sunu laaj république ak institution duñ leen laal institution ji si jiitu mooy justice képp kuy xarab justice di ko fooye képp kuy xarab institution yi di ko di leen fooye soo leen ko yëgee ak soo leen ko yëgul mi ngi leen di indil bunt boo xam ni fa lay lépp mën a jaar pour tas sa réew loolu mooy fondation yi kenn warul laal ñaareel bi mooy état de droit état ñi xam-xam ñi am xam-xam dëgg dëgg dëgg dañ naan la démocratie dafa am lu ko euh, ay limitam autorité de l'état doo ko laal unité et cohésion nationale doo ko laal loolu moom duñ ko warante bu si xuus ñu jàkkaarloog yow ni ma ko mën a misaale mooy borom kër état mooy kër borom kër bu góor ci këram nation mooy boroom kër bu jigéen ci këram état mooy baay bi mooy baayu réew mi nation mooy ndeyu réew mi baay ak ndey duñ leen laal duñu ñuy laal doom ju ñàkk bu boom fayda te am jom du su seetaan ñuy këram ñuy laal baayam wala ndeyam ku si mënul wax jàmm ak lu baax ak lu yiw demal sa yoon sino ñu jox la suñu bakket loolu la état ak unité nationale ak cohésion nationale donne dans une république mooy les deux fondations yu kenn dul ni ko si diggante bi nag werante leen loo leen bëgg man dama bëgg kii laa bëgg Xalifa Badiane laa bëgg kii la laa bëgg kooku moom liibar leen si waaye état bi unité et cohésion nationale duñ ko négocier or nag yooyu lañuy ñuy commencé di fooye léegi loolu mooy problème mu Sénégal tey suñ ko yëgee ak suñ ko yëgul yooyu la xale yi di commencé di fooye ñu ngi fooye état ak institution ñu ngi fooye unité nationale te unité nationale ma xamal leen leen réew moo sàggan ba coowu xeet coowu diine wala ceexu tarixa dugg fa soo leen ko yëgee soo leen ko yëgul yéen a ngay tas réew ma tas boo xam ne kenn du ko mën a li jantaat ba àddinay tukki loolu moom kenn du ko laal te xale yi yàq nañu domaine boobu waxu xeet du lu ñuy laal waxu diine du du ñuy laal waxu tarixa du lu ñuy laal politique sa politique bàyyil xeet ak diine tarixa fële ñun loolu lañu xam te yooyu aussi ñu ngi koy fooye looloo ñu yëkkati looloo ñu yëkkati pour que ñu dellu siwaat mooy ñaareelu principe bi ñetteelu principe bi mooy violence on rejette toutes les formes de violence violence moom buñ ko dugal si politique mooy troisième principe rejet de toutes les formes de violence défense de la République et des institutions défense de l'état de droit rejet de toute forme de violence mooy troisième principe bi yëkkati kuréel gi quatrième principe bi mooy le dialogue am na premier ministre waxtaane la ko léegi nañu fexe moom ba bu wax bi waxante bi moom bu mu dox waaye nag dialogue aussi dañ koy teg say principe su amul ay principe du dem waaw